ci contrat de transaction bi indien yi ni deux jours après la signature danañu verser xaalis bi deux mille deux mille deux mille douze deux mille treize mhm. coow li jóg en deux mille quatorze deux mille quinze ñu doog ko dugal ci loi de finance te contrat bi daf ñëwoon deux jours après la signature ba noppi ñu teq ci vingt milliards ni université Cheikh Al Ibrahima Niass bu Kaolack lañ ko dugal te université boobu pare mhm. ak benn cinq milliards boo xam ni leeral guñ ko ba léegi après la jël alalu Sénégal mooy gazu Saint-Louis bi ñuy wax mhm. te directeur u Cospetrogaz ni enfin le Sénégal va pouvoir approvisionner l'Europe en gaz gaz boobu lañ jox Aliou Sall ak Frank Timis mhm. donc moom Sénégal daf ko jël comme benn affaire boo xam ne daf ci war a jëriñu affaire u gore di la euh, affaire u affaire u criminel la li xew nii euh, lu méttee métti la mhm. euh, lu méttee métti la parce que dañu jël Sénégal def ko comme butin boo xam ni dañ ko war a séq di ko bokk pour ñu mën a continuer di ko séq di ko bokk nag il faut ñu samp ci pouvoir bi ba noppi jëf yu ñaaw yooyu ñu jëf day tax ëllëg ñu am lu ñu leen toppee parce que président Macky Sall mooy seul président boo xam ne mën nañ ko tëj fii kaso Sénégal. ci ci naka. ci naka xam nga. fii dañuy wax ni président mënuñu ko toppee lu dul haute trahison te haute trahison leerul pour Macky Sall c'est pas vrai Macky man du ma ko toppee haute trahison. loo koy toppee CREI yi laa koy yóbbu parce que ba muy ñëw dafa ni yee am na huit milliards. ñu ne la foo ko jëlee mu ne Ablaye Wade moo ma ko may Ablaye Wade ni waxul dëgg. waaw ah, loolu la wax. ba muy indi huit milliards yi il n'était pas président. il a fait sa déclaration de patrimoine avant sa prestation de serment la ko déposé conseil constitutionnel il n'était pas président amul woon privilège de juridiction mhm. président Macky Sall ci dossier boobu amul ci privilège de juridiction bu ñu ko bëggee àtte ci yeneen dossiers yi bii mën na tax ñu téye ko en attendant ñu mën a xool yeneen dossiers yi mu nekk mu nekk ay DPAC comprendre parce que pour maintenir ko dans les liens de la détention dossier boobu doy na parce que amu ci privilège de juridiction huit milliards yoo xam ni mënoo ko justifier autrement que dañ ma ko may te ki nga wax ni daf la ko may weddi na ko kooku c'est un problème. huit milliards du ah, <laughs> amul dañ ma ko may du loolu la ñu wax. amul dañ ma ko may. Hmm. ñoom nañu fexe ba bàyyi fi CREI après donc pour te dire. mën naa indi ay dossier dossier yoo xam ne mën nañ ci épingler le président Macky Sall lui moom rapport u IGE sax inspection générale d'État sax épingler na ñaari décret yoo xam ne dañ ko sant mu rapporté ko rapport 092 donc léegi ñoom xam nañ ni li ñu def dafa fangaaral fangaaral fangaaral ba nga xam ne mais da ngay gis citoyen toog ci plateau télévision man mi di ko joxoñ baaraam ci dix millions de dollars yoo xam ne kenn du ŋaang li ma wax léegi vingt milliards yi ñu téq ci xaalisu ArcelorMittal bi def naa yéen koy doog a dégg ci lu leer laa ko teg ñoom ñu ngi may dégg ci lu leer laa ko teg te même même am na benn société boo xam ne benn sénégalais bu gagné woon ndeysaan marché bi an euh, bokk ak benn société américaine mais dañ ko foqati ci loxoom au dernier moment jox ko ay chinois Baratal mu ngi présidence chinois yi nekk Sénégal nañu lijjanti ña kan la ñuy liggéey kon mafia boobu fi nekk te xam ni ñoom seen tànk buy laal suuf ñuy rendre compte. parce que ñi nekk ci dëkk bi xam nañu dossiers yi. loolu bokk na ci li tax ñuy ñuy mooy ci nguur gi ak milliers de milliards yi nga xam ni moo nara taw Sénégal ci suñu. gaz ak suñu pétrole ak suñu lithium ak suñu yeneen ressources naturelles yi nga xam ni léegi dafa gën a stratégique dafa gën a am valeur kon moom dafay ngoy léegi li tax ñu njort ni dañuy ngoy parce que nee naa démocratie démocratie bi dafa ñëw salfaañe ko dugal ay parrainage jël ay nit naan tout sénégalais électeur au lieu de tout sénégalais jël article L30 corsé ko xam nga un mois avec sursis doo bokk def daal ay ay ay mbiram bu noppi xale yëpp ñu bind au non inscrits sur les listes électorales beaucoup de jeune kon moom ci système boobu sax lañ ko gañee ci local yi lañ ko gañee ci législative bu fekkoon ni euh, fichier électoral bi jaaroon na yoon sax kon du gis dara dara dara moo tax combat bi fi mu nekk nii mooy bindu ci fichier yi euh, euh, jeunes yi jeunes yi bokk pour fitna bañ am parce que tey jii moom bu fekkee ni daf ñu imposer boppam toog du arméem du policeam du gendarmerie am du nerveem du sécurité de proximité du France du kenn moo mën a am ndam ci kaw askan bi loolu il faut mu leer il faut mu leer nañ parce que même armée bi mu yaakaar sax armée fi mu nekk nii dafa am ay division parce que euh, li nga doon wax ci nouveau nouveau recrutement yooyu posé woon na problème à la gendarmerie ba ba tin ba tin daal di dem actuellement nii euh, nu mu tuddati actuellement nii yaa a il y a des grincements de dents au sein du commandement de la parce que ni muy doxalee ñëpp ànduñu ci te moom fitna lay wut dafa bëgg xeex ak ñun dafa bëgg xeex ak askan moo tax may wax jeunes yi ñu vigilant ñu bañ leen xeexloo ci xeex boo xam ni jotagul parce que moom gis nga ni mu suréquiper les forces de l'ordre ay armure la ñuy sol ay gilet pare pour maintien d'ordre ay blindés ak ay semi blindés yoo xam ne ay véhicules de combat la ay tenue de combat gendarmerie bi nga xam ni créé lañ ko xamee woon ak tenue bleue léegi ay battle dress la ñuy sol ay camouflé même ñu duggoon gendarmerie euh, euh, assemblée nationale camouflé la ñu la la ñu yor keroog bi ñuy joxe verdict euh, délibéré au procès Barthélemy Diaz bi ay camouflé la ñu yor ba noppi nekk fii au de delà des heures alors que le matin avant dix heures def naa joxe nañu joxe nañu verdict bi mm. mais man dix heures fekk naa leen fii mm. rond point bi mm. ñu ñuy intimider nit ñi ak seen ak seen ay armada donc moom li muy wut mooy le chaos parce que amul droit à un troisième mandat te xam na ni dina yëngatu. parce que gis na ci benn point nga terminé ci. mooy ñooñu nga doon wax ni <clears throat> moom mu leen jël mu nekk benn société privée. Euh, indi leen fii nga <laughs> nga dellusiwaat ci loolu. yow yow xam naa renforcer lii pap Pape Saga xam naa xam naa xam naa Halliburton. waaw <coughs> euh, Halliburton. Euh, daf la intéressé trop. Mm. Halliburton Halliburton du xam nga Halliburton. <laughs> c'est une société américaine. Mmh. boo xam ni dañu spécialisé wu dans le deep water drilling. Euh, ñoom ak petro Petrobras bu Brésil. Mmh. c'est les meilleures entreprises au monde en forage en eau profonde. loolu seen liggéey la mën nañ ko. mais dañu am yeneen xeetu liggéey yu ñuy def. ba noppi dañu am benn SMP. Euh, société militaire privée. loolu mooy appellation bu bees bu mercenaire. loolu mooy mercenaire rek. SMP société militaire privée lañ leen tuddee. Mmh. pour taaral ko. donc d'anciens GIs et d'anciens de la cea ñoom lañ fay recruter ci benn armée bu tudd Blackwater boo xam ne armée Halliburton la ñiy seetaan bu ñu tàppee Halliburton avec deux L Burton avec UR euh, bu ñu defee Halliburton Blackwater wala Halliburton scandale ñu gis ni ñoom euh, même réalisateur bu ko seetoon dina ko gis mm-hmm. euh, c'est une c'est une c'est une armée parallèle en fait parce que mission yu armée américaine yi mënul def par exemple ay sociétés américaines yu am ay intérêt dans dans les eaux sénégalaises par exemple du ñu mën a déployer armée américaine pour mu sécuriser seen investissement donc ay ñoom Halliburton comme Wagner au Mali ñoom ñooy jouer rôle yooyu donc Halliburton mu ngi fi léegi man euh, au sein de Claire Vision avant depuis 2017 leen dénoncé woon ba def ci ay documents parce que kilomètre 16 52 de Rufisque fii la ñu amoon seen ay entrepôt la ñu am seen entrepôt ba léegi sax ñetti entrepôt yu toftaloo ñu bindoon ci Halliburton en rouge mais ba ma ko dénoncé dañ ko effacé dañ ko badigeonné mu weex mais entrepôt yaa ngi fa ba léegi kon ñoom lu ñuy nëbbatu donc léegi on leur donne des contrats de service dans les eaux ci turu KBR Kellogg Brown and Roots filialu Halliburton la donc ñoom ñu ngi fi ñu ngi ci GTA. Euh, ñoom ñu ngi liggéey ak Eiffage ci infrastructure installation euh, plateforme flottante bi. ñu ngi surtout à Sangomar. Euh, ci ci ci ci forage yi ak installation yi. d'accord ci seen société KBR te ñooñu lu tax ñu grave parce que États-Unis dafa amoon benn benn benn plateforme bu ñu fa explosé woon bu tudd Deepwater Horizon. bu amoon benn marée boo xam ni euh, bépp def ci ñàkkoon lu bëri parce que BP moo ko moomoon. Mm. onze ingénieurs américains moo deewoon ci plateforme bi. Mm. les enquêtes ont révélé que c' était du fait de Halliburton Halliburton plaidait coupable ñu ñu ñu ñu fayloo ko euh, vingt milliards de dollars pour ñu bàyyi mu sedd mais ils ont été condamnés et reconnus coupables donc ñooñu ñoo nekk dans nos eaux ñoo nekk ci suñu ay plateformes. te ñooñu seen rôle bokk na ci sécuriser euh, les chefs d'État africains yi nga xam ne wóoluwuñu seen armée ñoo xam ne dañu bëgg a imposer pour mën a continuer euh, sàmm seen i intérêt donc président Macky Sall ñooñu ñëpp mënuñu ko samp ci kaw askan bi parce que le le peuple mm-hmm. et est est, est plus fort et est, est plus déterminé. parce que acte yi muy posé ma daanelee foofu. Mm-hmm. day wane ni moom demul conseil constitutionnel fan la nekk léegi ambassade ancien ambassade États-Unis ancien ambassade États-Unis xam nga ancien ambassade États-Unis euh, moo nekkoon ministère de la justice mhm. gis nga ni ñu ko bunkeriser foofu ngandul réyul pour conseil constitutionnel ëpp na loolu ëppul pour xool tout ce batiment là pour conseil constitutionnel est-ce que lieu boobu sax du zone militaire ñu ñu ñu bunkeriser ko foofu mhm. pourquoi lan la ñuy waaj euh, 2 décembre 2021 président Macky Sall dafa jël benn décret décret 2021 1579 prolonger âge à la retraite des généraux à 62 ans parce que am na ñoo xam ne dafa leen positionné ñoo xam ni soxna la leen boole na ci bokk na ci son aide de camp euh, général Maïssa Sélé pour ñu accompagner ko ba ci fin wu mandat donc moom am na lu muy pare fi may daanelee rek mooy modification loi 69 29 euh, Mame Biram yéen a koy fàttaliku. ci hmm. état d'urgence euh, état de siège ak euh, beneen troisième régime bu ñu ci dugal muy euh, urgence sanitaire loolu président Macky Sall moo ko téye ci loxoom parce que fi mu nekk nii s'il n'arrive pas à maintenir l'ordre euh, état de siège hmm. du jaar assemblée nationale pour ñu voter ko mais moom moo koy décréter donc ça veut dire hmm. qu'il peut installer l'armée au pouvoir lui s'il ne peut plus tenir les rênes de ce pays donc loolu moo waral assemblée nationale li mu war a njëkk a def mooy foqati état de siège ak état d'urgence ci loxo président Macky Sall mu dellu ci assemblée nationale ñu voté ko parce que assemblée bi fi nu mu fii mhm. nii du nekk def lu ko neex très bien dem ci euh, dellu ci Mame Birame Wathie mhm. euh, bu li ñu wax yëpp bu dee moom ngoy na ci mbiri dëgër bopp ci ne day dem ba dem bu ay jafe-jafe amee ci réew mi ndax li xew lu mel ni Libi li xewoon Libi ci ay jafe-jafe am fa bu ko defee tubaab yi ñëw diviser pour mieux régner loolu mel na lu xewul Côte d'Ivoire ndax mënta egg si ba Sénégal xew fi ci bu ñu jàmbarloo rek bu ko defee ñoom ñu ñëw ci suñu gaz beeg suñu pétrole beeg yi nga xam ne nekk na fi di njariñ